nee te ñi fi toog ñëpp ñooy man maay ñoom Abdou Ndeene papam danoo juddu rekk fekk sunuy baay ak sunuy maam ànd maamam nee maamam moo teeru Seydil Hadji moo teeru Seydil Hadji fii ci Tiwaawan dogal ko fu mu ko fu quartier bii ñu tuddee quartier Alhaji ñu tuddee quartier Alhaji Malick. dafa naroon sax bàyyi nee mu nekk fekk na mu jaayante. ndax fekk na mu jaayante. ak kër Saadu Abi. ak kër Cheikh Saadu Abi. Seydi Hadj Malick ni ko déedéet. bul bàyyi wóllëre wi. bul bàyyi wóllëre wi. continuel. tanu bokkoo maag yow. tanu bokkoo maag yow. soo liggéey lu nu am yomal xiyaam. nu am nu bokk ko nu ca pays ba. mu invité ko ca pays benn timis. benn timis. Seydi Hadji dem. fasante fa seen wëllëre. ñu fasante fa seen wëllëre. wëllëre wa dañul. wëllëre wa dañul. ba ñoom ñaar ñëpp ñu wuy ji yàlla. seeni njaboot. seeni njaboot. duggante. ba ñoom ñëpp mujj di ay tiijaan. ñi ci ëpp di ay tiijaan. tuddee sama doom. mi ngi tuddee sama baay Mansour doom. mi ngi tuddee sama baay Abdoul doom. mi ngi tuddee sama baay Abdoul doom. mu ngi tuddee sama baay Serigne Babacar Sy doom. mi ngi tuddee sama baay Serigne Babacar si doom. ñaari famille yi jaxasoo. ñaari famille yi jaxasoo. ba daanaa ñëw sama kër. ba daanaa ñëw sama kër. sama soxna ni ma. sama soxna ni ma. Maysa Mbay Sall Baye. Maysa Mbay Sall Baye Abdou Ndéné mii. jaar na fi. jaar na fi. nee tey nangam la bëgg a reere. nee na tey nangam la bëgg reere. ba soppi naa cuisine bi ma naroon a def. togg li mu wax. togg li wax. tabaarakallahu. tabaarakallahu. ci ndeyam noonu. ci wàllu ndeyam noonu. kon kooku nuyu ko yomb na. ak ñi mu àndal ñëpp nag. ak ñi mu àndal nag. ñoo bokk li ñu bokk. ñoo bokk li ñu bokk. su ma ko fi limoon jant day so. bu ma ko fi doon lim jant day so. nee moo tax ci loolu rek laay yem. sëy na bu njëgeen maamam moom la alaaji maa ngi a xam ci région bi moom la alaaji maa li njëkk a xam ci région bi bay ca njaarnde bay ca njaarnde la mu bay mu def ko ci poosam la mu bay mu def ko ci poosam pour di wutale ay jigéenam kodd pour di wutale ay jigéenam kodd dugg saxaar suba teel dugg saxaar suba teel wàcc Thiès. wàcc Thiès. xamu fa kenn. xamu fa kenn. benn jigéen la dab. benn jigéen la dab. ni ko ndax dëkk bi am na benn muxaddamu tiijaan. ni ko ndax dëkk bi am na benn muxaddamu tiijaan. mu ni ko waaw. mu ni ko waaw. mu ni ko nu mu tudd. mu ni ko nu mu tudd. mu ni ko Alxaaji Ahmad Baro. mu ni ko Alxaaji Ahmad Baro. mu ni ko ndax man nga ma woon këram. mu ni ko ndax man nga maa woon këram. ndaw sa ni ko waaw. ndaw sa ni ko waaw. ñu ànd. ñu ànd. dem ba ci kër ga. dem ba kër ga. fekk góor gi mu ngi demoon julli ji. fekk góor gi mu ngi demoon julli ji. suba. suba te ñëwagul. te ñëwagul. yaayi Amady Njëgën. nee na yaayi alaaji Amady Njëgën. la fekk mu toog ci ëtt bi. la fekk mu toog ci ëtt bi. yore kurusam. yore kurusam. Seydi Hadj maa ngi nuyonteeg moom. Seydi Hadj Malick nuyonteeg moom. ni ko ana borom kër gi. ni ko ana borom kër gi. mu ko dafa demoon jàkka ji day ñëwagul. mu ne ko ah, dafa demoon jàkka ji day ñëwagul. mu wàññeeku. mu ne. mu wàññeeku mu wàññeeku. tase góor gi tase góor gi. ñu nuyonte. ñu nuyonte. kenn xamul sa kenn xamul sa mu topp ko. mu topp ko. ba ñu ñëw ci kër gi. ba ñu ñëw ci kër gi. mu ne ko. na nga tudd. mu ni ko na nga tudd. mu ni ko Malick Fawad. mu ni ko Malick Fawad. ko lu doon say tànk. mu ni ko lu doon say tànk. mu ni ko dama bayoon ba mbay ma sontu. mu ni ko waaw dama bayoon ba ma sontu. la cay wàllu jigéen ñi. te. la cay wàllu la cay jigéen ña. ma jëloon ko. ma jëloon ko. di leen ci wutal am code. di leen ci wutal am code. ñu ni Thiès day bari na piis. ñu ni Thiès day bari nay piis. ma ñëw nag di leen xottil ci ay yére. ma ñëw nag di leen xottil ay yére. ndax ñoom ñi jiite diine yépp. ndax ñoom ñooy jiite diine yépp. ñi jiite diine yépp. dañu mën njaboot. dañoo mën njaboot. duñu bàyyi seen njaboot di tumuranke duñu bàyyi seen njaboot di tumuranke duñu bàyyi seen njaboot di rafle duñu bàyyi seen njaboot di rafle góor gi ni ko ah góor gi ni ko ah am naa sama taalibe boo xam de